Eh, jàmm yeewu eh, ci jàmm eh, dem nañ fekk ji ko mu yebal ay nit ñu jël suñu ñu fekk ji ko moom ci jëmmi boppam it wan nag ànd naag ñun tiis wi ndax conseil des ministres bi moo waroon a am tey ci suba mu waroon a ñëw ci ñun mais comme conseil des ministres bi am te yàlla defal nañu jàmm ñu dem fekk si waxtaan ak moom mu ànd ak ñun métti bi ci xam ne nangu na ne dogalu suñu borom la yi ci war a jot yëpp def nañ ko ci yeneen yi ci war a am yëpp it ci ñu war koo jël en charge dana ko def kon nag jàpp na ne ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant ñi nga xam ne ñoom ñëpp lañ àndaloon ci délégation bi ci ñi ngi seen taxawaay ci protocole présidence bi ci docteur ci général bi nga xam ne mooy général Meng ci taxawaayam waaye ci gouverneur du Paré euh, ci taxawaayam ak Pape Samba ñoom ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na lool kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla yàlla def ci jàmm di ñaan yàlla di yàlla defal jàmm ñëpp di ñaan yàlla yàlla musul ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.